بعد الحسبلة وبعد البسملة وبعد الحمدلة وبعد الحوقلة mbàkke noo ngi jégguluwaat ci yii di xew xam nga lépp dafa ànd ki sew-sew waxal nu ci réew mi yow lan ci yaakaar te sa dëkk bi daa bokkul ak Dakar muy Touba la nga ca wax ci Matlabul Fawzayni dafay maye sans detu daare ni ñi cosaanoo Touba ak ñi texu si nanir madlabul fawzi modi solasi si ku rik mbake dimbali ñu dana doye de rek waye yeram nu lom paña tax sunu kay di jeex waye taxul nu bëgg naan ndox mu teex waye bu dee daf nu koy jaral serigne muntaka nang nu ko bégalal te wa état bi nga fexé ba ñu soppi te jox touba gëddam na ma soppi mo ci tombe rek mo ci tombe rikk kon na soppi fu soppi jote rek ñoo war a soppi Macky bonul waaye système bi moo baaxul nde Makka sax bàyyi ko lii baaxul te lu xure Makka nag day wokk mbarke ginnaaw ñoom ñaar fu ne fa def barke yow ko tëdd ki Cheikh Ahmadou ñii bu dul woon ak li ñu naan taalibe lañ dañ naan la nañ fi jóge kon duñ sañ a bañ waaye nag ku làqu ci yow nuñ koy def ñun Macky <laughs> xamuñu nan lañ koy def yéen a sedd de yéen ñiy dëkke réew mi ni ñuy def Touba te ma di xolu réew mi ku ci ñemee dëgg waxal ndax Touba mérité woon nii ñuy def ba booba tey nag lu nu def itam bu ëllëgee fa man yaamal mitqaala daratin xayran yara fa man yaamal mitqaala daratin charran yara loolu wax yàlla la te ñun ñëpp dee nag waaw te dinañu dekki ñaar yee ci am waaw tukki ak bañ a tukki de moom ku mu jot ceew ak foo mën a nekk rek mu fekk la fa li ma jaaxal nag ñi ne ay taalibe lañu waaw te bëgg a jiite réew mi waaw ñi ne ay taalibe lañ te bañ a jiite réew mi xanaa dañoo bañ Touba autonome <laughs> ba tax du ñu ci wax waaye jurul weraxle ndax li ma ko wax réew mi moom faw dañu koy seetaat nda wax na nag borom bu wér ci ay baat waxtu lay nekk bu jotee day yomb ñeneen ñu ko bëgg a jiite du yomb boroom a ngi waajal ki mu fi wóolu te bu ñëwee du doon ku dee si móolu kooko Touba lay njëkk a wax ay waxam waaw ndax day ñemee dëgg fare ay rongoñam Touba ngi jooy te ñu bari yëguñu ko système bee koy xas te mhm. kenn yëgu ko egg nañ ci banaan ko yàgg fépp yam waaye léegi boroom wax ci <laughs> ba ñëpp xam yàkkamtiwun lu tax xam daa yàggul xam na ne waxambaane mooy naan tul yaa man yu kulla tawdin shamaqa dakkan liqhar kulla janin bazmaqa nako ñepp mokal rek ba boba moy sunu tul duñ ci yorante ay fetal sunu der yi sunu yi da mi ngi ni kit kitira moy sunu tul duñ ci yorante ay fetal khalifa bi mom man de yeureum nako president Macky itam yeureum nako na wa penku jappale khalifa bi wa sow yi jappale president bi tuba d'abord jama waxon mom lay waxat positivement te bii de mën naa koo war kenn mënta tee la fa borom bëgg am te lu jot rekk te war a am faw mu am noo ngi yemale wax ji fii ngir yàlla ku ci seetatul yàlla seetal yàlla wasalaamu ala ni ittabaal huda